ñu tay seet Madam Lemer, madame le maire bëggu mu addu ci côté bobu wax ñu lan lan moo indi coow lolu exactement madame le maire ñu leen ma leen di fay bu baaxa baax di rafetlu tamen sen teewaay ndax euh, yeen mom, da ngeen bokku ci kër gi euh xamna ne lu ngeen dégg ci kër gi il faut que ngeen ñëw pour euh, bu ngeen ci waré am ay information yu leer ngeen am ko wa li fi xew nag euh, jàmm la benen côté bi du jàmm ndax nak buñ démé ba nga ni ay résidence yoo xam ne dañ ko war a génnee ci commune bu ginnaaw raay nord ñu di ko génnee ci kër loolu doy na waar mais it bu ñu demee ba gis ay domicile yoo xamante ne délégué de quartier yi ñoo ko war a joxe ñu koy gis ci loxo nit mu koy génnee loolu doy na waar. génnee ci kër yoo xamante ne nga ne dafa war a génnee ci mairie génnee ci kër est-ce que mën nga ñoo expliquer loolu. waaw li tax ma expliquer leen loolu moom moom laa tiim nii ndax certificat résidence lañ gis certificat résidence yi nag. suñu benn frère bu ñuy wax baaba jàllo baaba Diallo nag ñu gën koo xam moom mooy si lee naa honorable député Mame jaara Fam yi si la bokk euh, moom nag bu jëmee ba defar ay résidence di ko jox te résidence yi nag booy xool ni wax dëgg yàlla da ngay gis signature officier bi euh, te jaaru si officier bi loolu dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la euh, ñu wax ne li falsifié la waaye sàcc la waaw ndax sàcc mënu koo gën a rëy Euh, ñuy waxaat ne fii ginnaaw noor nañ delloo si suñu xel yi ak suñu xol yi tey liggéey ci kaw dëgg di wax ci kaw dëgg ndax nit ki moom looy mun di def te tegoo ko ci dëgg rek di nga ñàkk lu bëri ndax beneen bi tamit ñu neen population ginnaaw raay noor euh, si élection lañ jëm mais ñun ñëpp nañ ubbi suñu bët ubbi suñu xol fii du commune bu ñuy foyee sunu xale yu góor yi nga xamante ne amuñ si luñ jàpp nañ dem liggéeyi liggéey mooy dëgg dem uti si loo jàpp di yóbbu sa kër mooy dëgg mais boo demee ba foog ne yow foog nga ne politique bi liggéey nga ko jàpp war ngaa xooliwaat sa bopp moom moo waral ah démb daal la fi ñëw la fi feeñ te si loolu dafay fekk sunu beneen frère euh, koo xamante ñu ngi koy tuddee Assane Diop moom mu génnee ay domicile yoo xamante ne ni domicile yi mu ngi ko génnee si ñuy wax quartier Malick Fall te Assane Diop mu ngi yeewoo quartier Maguette Diallo fii moom man baa ko jël si loxo Assane Diop. mais mën a nekkee étant donné que délégué de quartier yi rek ñoo am droit attribuer ay domicile ak document yu mel nan na ko benn citoyen ordinaire mën a procurer woo ba di ko joxe. waaw moom moo ñu jaaxal nag moom moo waral tamit li ñu yoon may gannaaw gis nañ ko muy preuve dañ ko mun a dem déposer ko rek si yoon xëy na buñ ko déposer si yoon moom mooma buñ ko wooyee dinañu wax. fan la jógee jëlee domicile yi ndax ñun man nag domicile moom wax dëgg yàlla su ma ko soxlaa damay déplacé wu dem si délégué de quartier bi jox ko sama carte d'identité mu remplir ko jaay ma li nga xamante ne moom mooy domicile. mais bu ñu demee gis ay xale yu ndaw di doxantu ay domicile ñii naan délégué bee ma ko jox ñii naan damay politique moo tax ma uti domicile yi di ko joxe kon doy na waar. te nag dañu nekk foo moment boo xamante ne fii yoon moo fi daw mais dëgg moo fiy dem. bon boo xoolee ne dangay ngay foyee sa xel yaa ngi foyee population bi te nag seen wax bëri na lool seen njuuj njaay bëri na lool seen sàcc bëri na lool mais dëgg rek moo fiy dëgg dëgg moom mooy njëkk dëgg moom mooy mujj. Euh, léegi mën naa xam ndax domicile dans les normes dañ koy jaay wala dañ ko war a joxe c'est gratuit. non non c'est pas gratuit domicile délégué de quartier yi dañ koy jaay ñoom dañ koy jaay mais tey jii domicile ñoom rek ñoo am droit signé ko waaw ñoom ñoo am droit yi tamit def ci seen cachet. mais soo demee ba ne délégué ne lii de jógewul sama loxo kon war nañoo taxaw nag seetlu taxaw seetlu bu nag moom moo war a it ñu téye ko bi ñu ko téyee dañ koy jébbal fi nga xamante ne ñoom ñooy yoon ñu enquête ba xam lu si yoon maye ndax ñoom war nañu dem di defar ay domicile ñoom ñi nga xamante ne duñ délégué duñu dara war a yoon délégué de quartier yi la war a wax pour ñu délibérer euh, domicile yi loolu daal moom laa ci amoon pour wax ci ok madame la maire ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa di remercier yéen it bu baax a baax euh, di profité rek si seen antenne bi di woo waa ginnaaw raay noor yëpp nee na nañu jàpp boole xol yi te boole suñ doole lii am si yooneen communes yi amul fii si commune kon nag duñ bàyyi ay xale yu ndaw ay xale yoo xamante ne xamaguñ ci politique tey ji dara ñoo bugg a taxaw di foyee xeli askan bi nañ leen yeewu encore une fois commune l'essentiel élection yaa ngi ñëw ku mun sa morom duma tey chaise bi ki ci war a toog pare na bu yàgg mais nañ ko teg si yoon ak dëgg rek yàlla baax na jërëjëf